ma jóg te fas yéene liggéeyal Serigne Touba. ana ñi daan dem Chine Dubai ngir wuti sañse jaratu ko ndax def ko yàq la. Alla An waa kër Serigne Mbacke Diop Kalsaan indil na leen tissu yu mucc ayib moo xam genre boo bëgg wala sax catégorie boo bëgg waa kër Serigne Mbacke Kalsaan dinañ ci ànd ak yow ci ci jàppale la ba nga am tissu bu mucc ayib boo xam ni foo ko sol daal di daan kon waa kër Serigne Mbacke Kalsaan ñi ngi Pikine tali bu mag en face station sel mën ngeen leen a jot ci 77 wala sax 77 71 84 waa kër Serigne Mbacke Diop Kalsane ña nga sax fële ca Touba ci 77 575 08 29 ak waa kër Serigne Mbacke Diop Kalsane jaratul sax déplacé wu ngir bëgg sañse mi ngi leen jege indil leen ay sañse yu mucc ay ci seeni gët.